voilà ñuy nuyu auditeurs yu Rewmi FM 97.5 euh, euh, euh, di nuyu suñu ganuk bés bi di Assane Dione nekk responsable politique dans la commune de Payar département Koumpentoum région Tambacounda chargé de la massification de Pastef dans le département de Koumpentoum ñu koy nuyu Assane Dione di la dalal jàmm. asalaamaaleykum Ndeye yëpp. voilà Assane euh, déjà ma lay euh, laaj euh, yow naka nga gisee euh, mandat de dépôt bi nga xam ne teg nañ ko ci ndoddu Ousmane Sonko seen leader. waaw mandat de dépôt bi niñ ko gisee d'abord mooy mooy nekk na loo xamante ni ci bettuñu bettuñu dans la mesure où gis nañ la succession des événements depuis le début gis nañ niñ ko xoqatale depuis le début gis nañ ni acharnement bi depuis le début aussi gis nañ tooñ bi nga xam ne ñu koy teg ci ci kon ñun xamoon nañ nekk ñii fi nekk tey bu ñu demee ba woo ko duñ ko fa duñ ko bàyyiwaat mu ñibbi këram parce que l'objectif était clair mooy maanaam naka la ñuy def ba xañ ko ba du bokk en deux mille vingt quatre ñun nag ni ñu ko jàppee mooy ni ñu ni ci jëlee information bi d' abord mooy avec dignité avec honneur parce que comme ni ma ko waxee rek nguur gi fi nekk ñoo mënuñoo xoqatal mënuñoo tiital mënuñoo ragalloo mënul def loo xam ne aussi dañuy jaaxal parce que ñun ay combattant lañ ñun dañoo am gëm-gëm nañ yàlla wóolu nañ ko mais aussi dañoo nekk ay Séné ay sénégalais ñoom gënuñoo dëkk ci dëkk bi kon bu ñu jël injustice di ko teg suñu kaw tamit loolu mënu nekk loo xamante ni si tey daf ñuy décourager loo wala def ñuy tere continuer euh, suñu combat wala suñu xeex pour Sénégal bi nga xamante ni si tey moom la ñëpp di reewee. Euh, kon daal gis nga ni injustice la ñu teg si ndoddu Ousmane Sonko. injustice la injustice la parce que Ousmane Sonko liñ koy tuumal yëpp boo xoolee li nga xamante ni si yëpp ñu ngi ko koy tuumal tey. ay mbir la yoo xamante ni si amul benn fondement amul benn taxawaay maanaam dañoo jël lépp loo xamante si neex na leen rek ñu dajale ko teg ko ci ndodam bi pour mën a corser dossier bi pour nga xamante ne si tey 2024 euh, du bokk objectif bi loolu kese la mooy ñoom xam nañ ne Ousmane Sonko am na doole xam nañ ne Ousmane Sonko am na projet boo xamante ni si tey mën na génne Sénégal ci li mu nekk ñoom xamal nañ seen bopp nekk 12 ans yi nga xamante si jiite nañ ko Sénégal yépp yàq alalu réew mi lañ fi nekkee salfaane ak ak yeleefu doomu aadama yi ñu xam ne kii kat bu fi ñëwee nitu dëgg la bu ñëwee dana rétablir l'ordre te lépp lu fi waaye defoon aussi da nga ñëw répondre devant devant devant des ñu ne waaw kon nañ def bépp pexe pour pour pour jële ko fi kon injustice la parce que boo xoolee depuis ñun ñu dugg ci politique ba tey injustice rek lañ ñuy teg injustice bi teg Ousmane ko man gisuma ne dans l'histoire politique du Sénégal am na benn homme politique ñu ko mës a teg waaye est-ce que tamit Assane Dione du dëgg ni seen leader moo def euh, li ñu wax appel à l'insurrection ñëpp di ko gis di ko dégg est-ce que loolu tamit du dëgg. waaw Ndeye Comba xam nga ñun politique nañ suñu parti ñu ngi ko créé en 2014. Mm -hmm. politique nañ fi 2017 ñu nekk fi député en 2019 ñu nekk ñu dem président ñu dem présidentiel am troisième am plus de set cent mille des des des suffrages des bi loolu est-ce que depuis 2014 ba léegi gis ngeen. ñu gis benn manifestation wala benn discours boo xamante ni métti na ñu ne waa Pastef ñoo ko def kon lan moo indi mbir mi la Sénégal yi war a xool mooy événement mars deux mille vingt et yi bi nga si tey ñoom ngebb nañ benn ndaw soo xamante si tey dañ ko jël monté ko eh, préparé ko pour mu ñëw takkal deru ki nga xamante si tey mooy suñu leader di Ousmane Sonko foofu la mbir yi donc ñun on dans une situation de défensif on était dans une situation de répondre à des accusations yoo xamante ni si tey amul benn fondement ay nit ñoo xam ne dañoo jóg pour yàq la tilimal la tuumal la loo xamante ni si defoo ko te même bi ñu demee tamit ñoom ak seen bi nga xamante ni si tey ñoom ñoo ko téye lépp loo xamante ni si mën nañ ko def nañ ko pour taqal ko mais amuñu benn preuve pour taqal ko donc on est passé de viol à corruption de la jeunesse loolu li muy wane rek mooy li ma la wax injustice bi ma lay wax donc suñu leader li muy def mooy day politique Sénégal moo ñu may ñu nekk ci réew moo xam ne boo àndul ak nguur sañ ngaa bokk ci opposition réew nguur gi fi nekk dafa allergique opposition Macky Sall li mu bëgg mooy ñëpp and ak moom bañ na ko ba opposition bi ñu fi nekkoon ñëpp jël na leen nax leen ba taf leen ci wetam ñun ñi nga xam ne nag dañoo dëgër bañ depuis le début mënuñoo xëcc taf ñu ci boppam mu ne ko naa ko naka lay def ba faagagal leen loolu kese moo fi nekk du leneen. Mhm. Euh, bañ ca teg aussi ba ñu euh, euh, placé sous mandat de dépôt Ousmane Sonko dañoo tas seen parti bi di Pastef loolu tamit naka ngeen ko gisee. waaw ni ñu ko gisee mooy ba tey rek mooy li may wax rek succession des événements rek mooy seen yéene mais Pastef moom kenn mënu ko tas xam nga Pastef nekkul loo xamante ni si ci ay kayit lañ ko xaatim rek teg ko nga ñëw tamit nga xam ne mën ngaa ñëwaat ci ay kayit rek ko. Pastef idéologie la état d'esprit la Pastef dafa nekk benn projet boo xam ne ay sénégalais des millions de sénégalais ñoo ci adhéré gëm ko tey boo xool ñu bëri ci ñun muy man muy samay morom ba ñuy am yenn esprit yi xamuñ sax Ousmane Sonko ba ñuy xeex pour la souveraineté du Sénégal xamuñ sax kan mooy Ousmane Sonko Ousmane Sonko def ñu ci effet au contraire parce que ñun bañ koy def boobu Pastef créé guñ ko sax ñu bëri ci ñun bi ñuy xeex pour un Sénégal meilleur pour un Sénégal de souveraineté pour Sénégal boo xamante si moom la ñëpp di boobu xamuñu kan mooy Ousmane Sonko dafa ñoo fekk ñu idéologie boobu noonu nag kenn mënu ko génne ci ñun état d'esprit boobu kenn mënu ko génne ci ñun ñoom mënuñ mënuñoo raxas suñu suñu suñu suñu xel li nekk suñu xel nekk ci suñu xool loolu ñoom tuuti nañ pour raxas mën nañ mën de maintenant nag mën nañ jël benn papier bind li ñuy bind avec la complicité de lu leen neex ak euh, yéen yéen yéen yéen homme politique yeeg ak ak ak ñëpp ñoo xamante ne dañoo contre Ousmane Sonko ñu def li ñuy def mais ñun li ñu yoon may dinañ ko def li war ñun aussi dinañ jël suñu responsabilité face à l'histoire mais ñoom munuñu mënuñu mënuñu tas Pastef mënuñu tas aussi cette famille bi nga xamante ne si day benn idéal comme moo leen moo leen boole Mhm. Euh, Assane Dione aussi euh, comme que ni ngeen koy waxee kenn mënul tas Pastef parce que déjà Pastef euh, si xool la ak si xalaat kon tey jii Pastef naka la fas yéene participer ci élection deux mille vingt quatre est ce que da ngeen di dem xool candidat bu yeewi bu gën a taxaw ngeen soutenir ko wala naka ngeen fas yéene participer wala da ngeen di am une candidature indépendante. waaw ndey Kumba ñun li ñu gëm fi ñuy wax ak yow mooy Ousmane Sonko mooy suñu candidat en deux mille vingt quatre et on va se battre pour que Ousmane Sonko nekk candidat en deux mille en deux mille vingt quatre mais man li ma gis man personnellement li ma gëm gis ko mooy que gisuma fi en deux diggante fi ak mille vingt quatre gisuma fi tey benn homme politique ci opposant yi fi nekk moo xam ci pouvoir bi boo xamante ni si tey mën naa redresser le pays mën naa yóbbu réew mi fi nga xamante si moom la ñu réewee ñun ñëpp. Euh, léegi euh, desitu komba bi euh, naka ngeen fas yéenee def da ngeen fas yéenee xeex pour jotaat seen parti Pastef est-ce que di ngeen def recours comme li leen yoon may waaw wala det effectivement malgré que ñun dañoo nekk ci dëkk boo xamante ni si man dama gëm na sax yoon amu fi man li ma gëm mooy que dëkk bi ñu nekk nii justice amu fi li fi am mooy ay benn clan boo xamante ni si day ñoom ñoo fi nekk lu leen neex mooy am ci réew mi lu leen neexul di fi am ku far ci ñoom. lu la neex def bu la neexee saaga bu la neexee nga ne nañ rey Ousmane Sonko bu la neexee nga ne nañ taal militant Ousmane Sonko yi te dara du la ci fekk kon tey bu ñu demee ba nekk ci euh, réew moo xam ne ku ma am ndey la ku ma amul ndey donc foofu dama naan justice amatu fa yoon amu fa mais ñun li ñu war dinañ ko def li nga xamante ni si moo ñëw la ñu yoon may dinañ ko def leneen li nga xamante ni si aussi euh, euh, constitution may nañu ko en tant ay ay nit ñoo xamante ni si tey sañ nañ ñu teg leen loo xam ne d'accord ci ñu bañ ko ñun loolu aussi dinañ ci continuer te dinañ xeex li nga xamante ni si tey mooy Sénégal baax loolu loolu ñoom mënuñ mënuñu empêcher ñu def ko. Euh, léegi Assane est-ce que euh, mën naa laaj aussi lan moo tax ñi bokk euh, Pastef fu ñu toll di traité Khalifa Ababacar Sall euh, de traitre di ko sonal euh, lool lan moo ko waral exactement. waaw loolu li ko waral mooy moom moo ko doxee. moo ko doxee moom moo ko waxee parce que tey boo xoolee ñun dañoo booloo woon autour d'une coalition boo xamante ni si tey ñu Askan Wi ñu bokkoon ay combat bokkoon ay principe bokkoon ay objectif bien vrai que waxoon nañ ne bu ñu demee ba élection présidentielle ku ne da demal sa bopp deuxième tour le mieux placé ñu jàppale ko kon ay nit bu ñu demee ba waxtaana lool c'est une famille famille nag mënuñu wax ne man famille la tey nga dem ci ki nga xamante ni sama principal ennemi la nga xamante ni si mu ngi door sama kaw suba ak ngoon mu may teg injustice ngi jàpp samay nit di leen rey di jàpp nit di leen tëj nga dem toog ak kooku naan da ngay waxtaan da ngay dialogue da ngay négocier pour sa candidature te alors que Ousmane Sonko bokk na ci Ousmane Sonko bi ñu ko bàyyiwee mars en mars mars deux mille vingt et un li mu njëkk a wax bokk na ci ay points yu mu doon exiger mooy la participation de Karim Wade et de Khalifa en deux mille vingt quatre mais Ousmane Sonko tey bu demoon négocier comme ñoom ni ñu négocier te yi may wax ak yow kenn du ko def mandat de dépôt mais dafa am dignité am ngor am gëm-gëm boo xamante ni si tey moo ko tere muy dem di def ay complot sur le dos du peuple kon ñoom ñoo dem def seen dil ak ak donc lii nga xamante si mooy dal mooy dal tey ak lépp ñoom seen loxo génnu ci seen loxo génnu ci dans la mesure où bi di dóor di gor di def lu ko neex ñoom dañoo dem terew ñoom dañoo dem toog ak moom toog boobu noonu moo war a doon au moment où on a des militants yoo xam ne ñu ngi ci suuf si faatu na ñàkk seen bakkan on a des militants plus de sept cent mille militants yoo xam ne ñu ngi ci loxo Macky Sall mu tëj leen ci kaso bi kon loolu noonu ñoom ñoo ko doxee nit nag ni ngay doxee rek ni ngay doxee ak ni ngay jëfee noonu lañ la mën a qualifier. pourtant toog boobu bu ñu sukkandikoo sax ci seen leader ci déclaration bi mu yi mu mujjee def plutôt euh, moom nee na pare na pour dialoguer pour pardonner euh, voilà pour dialoguer ak président Macky Sall kon est-ce que war ngeen a mën a condamner euh, Khalifa Sall parce que dafa dem dialoguer ak président Sall parce que gis nañ ni sax yéen à un moment donné membre Pastef fi favorable nañ à un dialogue avec le président man personnellement j'ai jamais été favorable a un dialogue te aussi mosuma dégg Ousmane Sonko personnellement mu taxaw mu ne bëgg na jóg dem dialogue ji ak ak ak moom li mu mas yàgg a wax Ousmane Sonko li mu yàgg wax mooy amul benn impersonnel bu koy animé malgré li ko li ko kii teg yëpp amul benn impersonnel boo xamante ni si day jàppal na ko Macky Sall mais kantaana ñu jàpp ay militant tëj leen ci kaso bi ñu ñu rey mu dem di toog ak Macky Sall loolu Ousmane Sonko mosul loolu mosul traversé son esprit te ñun aussi mosuñu par exemple day di di yërëmtulu wala di di dem ci Macky pour mu may ñu benn faveur parce que man dama gëm nekk nous sommes dans un pays boo xamante ne si tey peuple bi moom moo fi nekk population yi ñu yor seen bët di xool lépp loo xamante ni si tey ñu ngi koy def ci réew mi bu population yi nangoo noonu la buñ ko nangul aussi amul kenn ku ko mën parce que le peuple moom est souverain et pouvoir bi aussi mooy doole. Hmm. Euh, pouvoir yoru ko nguur yorul doole doole askan moo ko yor moo koy jël jox ko pouvoir moo koy jël nanguwaat. Mmh. Euh, dernière question Assane Dione moom mooy euh, si affaire Sonko bi mu démarré ba léegi ñi si euh, faatu bari na 2021 ba léegi dégâts yi aussi euh, bari na gis nga démb rek euh, bus bi nga xam ni taal nañ ko am ñu faatu bari na daal mu mel ni sax si dossier bees bi lépp dañ ko ter teg euh, si ndoddu Ousmane Sonko naka nga gisee dégâts yooyu le ñu dem bay taqal leen sax si wàllum terrorisme en fait. xam nga loolu noonu dañoo nekk ci nguur boo xamante ni si tey day daw ay responsabilité parce que nee naa la manifestation moom ak ñu teg la loo xam ne nangu woo nga taxaw bañ ko loolu yàgg na ci réew yàgg na ci askan yi donc boo demee ci réew yi gis nañ la la dernière fois nii day dem nañ réew boo xam ne si tey bu mel wala ay Amérique da ngay gis nit ñi di manifester danañ def manifestation yu métti danañ taal yëpp mais doo mës a dégg na rey nañ nit doo ko mës a dégg manifestation fépp lay am récemment gis nga bi ñu jeune boobu noonu en France ñaata oto lañ taal ñaata kii lañ taal ay ay structure ñaata mairie lañ taal mais est-ce que dégg nga fa benn yoon ñu ne la rey nañ mais bu dee Sénégal bu ñu nee salaamaaleykum ay ñu jël ay nit di tiire di dóor ñan ñoo ñan ñoo tiire ba tey jii bu ñu nekkoon dans un pays sérieux dans un dans de droit tey ñi nga xamante ne si tey depuis mars 2021 ñu ngi rey ay nit mais nañ situer les responsabilités mais ba tey ji may wax yow amul benn enquête indépendante boo xam ne mën na la wax circonstance yu rey nit ñi kon man dama naan bu fekkente ne ñoom am na benn responsabilité wala benn responsable boo xam ne moom moo waral yëpp ñoom la parce que complot yi ñu fiy teg ak faagaagal opposant yëpp loolu le président Macky Sall ak ay ñoñam ñoom ñoo ko fi nekkee di plaider kon nag man dama ne responsabilité bi lépp ñoom la luy xew Sénégal ci seen ndodd lañ ko war a teg war ko teg ci ndoddu kenn parce que ñoom ñoo fi nekk di def loo xamante ni si du dëgg du yor hmm. Assane joon maa ngi lay remercier en tout cas bu baax a baax ci disponibilité bi tontu bi nga tontu suñuy laaj jërëjëf Ndeye Comba